kenn du ko yërëm nañu dem kay wuti ca la mu am ñu jël kii ci ligne bi allo. Adja yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. waaw. Ah la là là allo. ndeysaan dafa sori te jamono bii suba teel la waaye nag sama soppe la day xëcc rek euh, pour dugg indi xalaatam ma koy nuyu di ko wax ne rek maa ngi koy xaarandiwaat ngir mu indi xalaatam yeggale li nga xamante ni moom la doon bëgg a wax. Euh, boo déggee nag ma ne nañu taal télé yi te yokk ko ma wax ci njëkk yi dafay am njëkke yoo xamante ni jigéen ñi dañuy daw si ñëw duñu ñu jooytu fii waaye nag am na ci njëkke yoo xamante ni yu baax lañu yoo xamante ni zéro faute euh, damay wax ne rek euh, xale bu d'accordee ki sànnante dafa dëggu xeer su ma d'accordee ci yëkkati loolu rek dafa fekk ne xëy na peut-être bu ma ceen ñimee addu semaine yàlla te awma ci lu may tiit awma ci lu may ragal booba fekk ne njëkke yi ma yàlla booleel doon ñoo xamante ni A ba Z nag bu ma limee damay juum amuñu defo ci man ñëpp ma bëgg muy goro muy bàjjen ya muy rakki yaay ya ku mu mënti doon ñoom ñëpp daal delloo naa leen njukkal bu baax a baax a baax a baax bu ma jëlee teg ci loxo garaase nag mel na ni wax naa nday faatu wax naa nday mareem wax naa awa jéen wax naa nday jéen wax képp koo xamante ni rek dangaa bokk ci axlu njéeneen ñu jël ki ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. a salaam. allo. allo. voilà ñu jégalu ko bu baax a baax li may def dama dugg fu baax foo xamante ni wax dëgg yàlla dañ ma dalal yaatal ma bàyyi ma ak sama xel ak sama sago may defee nu ma neex nag di doxalee nu ma neex te lu ma wax lu ne neex na leen lu ma bëgg lu ne ña nga ca kon maa ngi leen di jëfal bu baax a baax waa kër Ndey Rama waa kër Aminta Gueye waa kër Tante Kati ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bàyyi xel keneen a ngi noonu ci ligne bi bu ma kaleel clip sax ma delluwaat ci lébu gi allo. man la Oumy Faye dëkk Tivaouane. waaye Faye Ndiob maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar waa Tivaouane. maa ngi lay itam yi ngay def. parce que Jamari Thiam. ak moom yéen a bokk ndey ak baay. dëgg la. lu mu am. Hmm. da ko war a naw. wallahi lu ko jëkkëram defar. Hmm. da nga koo war a naw. ndeysaan. ndax da ñaan yàlla fu ngay seet. sam njaboot màggee fa ni sëñ defal leen ko. wallaay wallaay. waaye nag jabari càmmiñ moom. Hmm. defal ni nga bokk càmmiñ ndey baay wala ni nga bokkee moom ndey wala ni nga bokkee moom baay noonu nga bokkee yépp. dëgg la dëgg la. kon jabari càmmiñ dañ koo war a def comme baay. man hmm. li may fay de damaa faa personal samay jabari càmmiñ ñu ngi may dégg. ndeysaan. ñoom ñëpp samay rakk la nit ñi samay doom la am na solo. samay xarit lanu. Mhm. ndax dañoo dimbali samay càmmiñ. yërëm samay càmmiñ. ndeysaan. san sant. am na solo. waaw sama. allo. ñu jaajëfal ko bu baax a baax jaajëfal képp ku nekk Tiwaawan di ci bàyyi xel bu baax uh, ajaratu Ndey Jeng di sama yaay booy nekk foofu ci diwaanu Tiwaawan yaay vie waaye itam nuyu sargal itam uh, ki nga xamante ni mooy Serigne Habib Sy bum uh, Mbay Sy man Serigne Mbay Sy Mansour maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ziyaar itam Serigne Mbay Sy Mansour bu baax di sàkku ci ñoom ñaan wax naa leen ko bunt bi dañ koy yaatal waaye li ñuy def mooy rek nañu delluwaat régie seetaanaat beneen clip ma béggalee leen ko su ko defee ñu dellu si waat àndaat ak yéen ci li nga xamante ni mooy comportement jëkkër ak comportement jarbaat bi ci kër gi ñu seetaan clip te ñëw awa buru këram waaye ay sa gay samp moo jur jaraaf jàkka jéenoo oh. bu baax a baax waa régie tey moom fi ñu okk dafa baax lool ba tax na rek ñu ngi nuyu di sargal euh, ki nga xamante ni mooy jaraaf Youssou Mbeng Bidou Ndiaye Mbeng di way nekk fële ci diwaanu Yoff ñu koy nuyu di ko ziyaar di ziyaar itam jaraaf Ndëmbaan Mbeng waaye nag du ñu ki nga xamante ni dafa jàppale waa Yoff gépp euh, di Mass Mbeng ñu koy nuyu di ko ñaanal yàlla itam yàlla na war wërsëgam yàgg ci loxoom en tout cas xamuñu ko nag waaye nag lu ñu dégg lu baax lu ne danañ ko jottali ba tax na rek Mass Mbeng ñu ngi koy nuyu di nuyu xaritam Alsane Kar Ndeye Rokhaya ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu eh, di leen bàyyi xel Aïda Tambédou eh, di sœur ci mun Maymuna Tambédou mi jëru jaraaf Youssou Mbengue itam nekk fële ci diwaanu Yoff ñu ngi koy nuyu di ko bàyyi xel di ko ñaanal yàlla moom tam yokk ba yëg ko bunt baa ngi noonu way leen di ci jaar ngeen indi seen xalaat ci li nga xamante ni mooy neex neexu biir sëy sëy dafa war a neex ah, nit ki nekk ci jàmm te nag damay faral di wax ne dara gënu la ñaaw sa jabaru càmmeñ wala sa goro dépare ci biir kër ne maa ngay dem seeti samay mbokk mu yegg yaayam fat ko ci biir néeg ñetti fani yàlla yoo xamante ni day dëkk di ko ruyal di ko fondeel di ko sombil wutali ko ndobine wax bu mu teg ci yaramam ku desal borode may ko ku desal basin may ko ñu tappalaatul ko ñawal ko ndax bu na muy yegsee ci ñoom dinañu jomb koo xamante ni ku ko gis la te nag loolu damay faral di wax ne góor ñi war nañu ko daw de waaye nag jigéen ñi nga xamante ni ñoom bu jàkkaarloo jotee ñooy jàkkaarloo waxante lu baax ñoom itam nañ cee bay seen laaj te laaj ci wow lan la may jàmm may salaam digal càmmeñ wala doom ji góor ne ko jàppaleel sa jabar ndax kenn amul ku dul sa jabar ñu jël ki ci ligne bi alo yokk leen télé yi rek te ba ma